mucc bu rafet bëriwul de. Hmm. Hmm. àq baaxul sëriñ bi. d' accord d' accord jërëjëf euh, Cheikh euh, Ousmane alors ñu daal di ñëw ci dernier point bi visite des euh, installations du TER le ministre El Hadj Malick Ndiaye demande de peindre les trains aux couleurs nationales maanaam ñu dindi li nga xamante ne couleurs yi fa def daal di fay def vert rouge étoile ci digg bi. mami pour yow lan moo tax mu. amee taxawaay boobu. waaw pour ne pas justement que maanaam euh, lépp loo xamante ne dañu koo liggéeyal askan wi ñu attribué ko benn parti politique. Mhm. xam nga te loolu sax tàmbalewul ci président Sall même euh, tu te rappelles les bus Dakar dem dikk yi ndikki ñëw yi nga xam ne moom la Wade indi woon ci parc automobile bi c'était aux couleurs du PDS. Mhm. Euh, c'était du bleu et du jaune. Mhm. quand Macky Sall moom aussi muy indi parc automobile bu bus Dakar dem dikki daf ko changé daf ko marron yaa ngi dégg ba ci terre bi et tout ça c'est-à-dire que en fait oh, euh, il faut ñu xam ne euh, sunu chef d'État yi li ñuy liggéeyal askan wi euh, dëgg la naam war naa mën a bokk ci seen bilan mooy seen bilan matériel yi ñu fi jot a def mais euh, l'appartenance revient au peuple en fait donc on doit pas pouvoir faire de distinction ci li nga xamante ne moom mooy am am bi sénégalais bi am jaarale ko ci li nga xamante ne moom mooy soit ay terme de négociation wala ak acquis boo xam ne président de la république defal na ko askanam je suis entièrement d'accord avec lui hmm. que waruñu mën a euh, donc ci gis-gis nii rek xool xàmmee ne ah lii kat wax dëgg yàlla euh, kii la nu ñu koy waxatee maanaam euh, diw moo ko fi liggéey ci parti politique ñu attribué ko cette politisation la Euh, ba ci loo xamante ne askan wi ñoo ko moomal seen bopp loolee dafa war a dakk mm. ma gëm ne lépp loo xamante ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp effectivement dafa war a nekk couleur euh, nationale surtout que bu ñu ko bëggoon def couleur parti Pastef dina ñaaw <laughs> <laughs> ñaaw trop dana ñaaw de du rafet de barke du rafet nag damay wax ak ñoom seen vert rouge blanc bi ko bëggoon def ay couleur bi sa couleur kii ah waaye ndaw ndaw bis yu xàññaaral nag moom koy foo leen seen koy moom sa taw amul benn charme waaw le le vert jaune rouge daal pour man pour ñu mën a tënkale lépp rek hmm. tolloole ñëpp wàññi politisation bi ça il faut vraiment que ñu ñu travailler sur ça Pape Ousmane il faut que hmm. euh, li nga xam ne moom la askan wi moom peuple bi sentir ne seen yëfi bopp la ñoo ko moom hmm. finalement parce que day mel ni nekkatul loo xam ne sunu alalu bopp la day mel ni comme si c'est un don bu ñu jox boo xam ne à chaque fois on est obligé de te rappeler kan moo la ko jox à travers les yi nga xam ne moom la ñuy bëgg di def sax su nekk ci soit suñu ay automobile suñu ay auto wala yenn yi nga xam ne dañ koy bëgg pël pour man daal couleur u parti war naa mën a yem ca permanence su parti ba mm-hmm. wala boog euh, lépp loo xamante ne xëy na xew-xew parti bi la bu jëm ci wàllum politique waaye loo xam ne askan wee ko moom vraiment mën nañu dimbali ci couleur yooyu loolu euh, président Wade defoon na ko fi Sall def ko fi heureusement que ñoom mais est-ce que jàpp nga ni bus ko defoon couleur sunu Euh, réew dana muccal bus yooyu sax ci xam nga. mais yu yëngu parce que tey jii bu manifestation amoon maa yàlla bu mu am. mais dëkk ko ci nekk bien sûr dina am eh, des des moments yoo xamante ne voilà c'est des de de contestation entre autres mais xëy na amaana yow boo yëkkatee xeer ba ne jàkk yam ci sa drapeau sa acte de civisme du la may sax nga ne xaaral ma toj ko ndax dina la fàttali ne sa alalu bopp la. Mm-hmm. parce que réalité sunu alal la ko moom. bu nu ko yàqee suñu alalu bopp la ñuy yàq bu ñuy daw di wutiwaat dañuy daw di wutiwaat te investissement boobu xajoon na ci yeneen donc ñu def ci les drapeaux national de le pardon les couleurs nationales de notre drapeau loolu moo gën téeméeri junni yoon yow tey nga am lu la naqari benn su romb la. nekk ci couleuru APR danga naan kii xaaral rek saa waay xaaral ma xorom yaa ngi dégg. parce que yow colère bi lay habité gisatoo infrastructure bi en tant que tel li ngay gis les couleurs ak li mu lay fàttali ci wàllum politique wala yenn actes yu ñuy def. parce que barke Diém boo Ndiaye sax même yëngu-yëngu yi amoon ci commerçant yi gis nga lii ñi. c'est normal Dakar Dem Dikk dañoo dañoo envoyé ay message pour wax ni suspendre nañ seen parce que bis yu bëri dañ leen di jaar waay comme yu mel que. ñoom seen marron bees bi sax rafetul. <laughs> barke rafetul rafetul rafetul je te promets par exemple BRT bi. BRT bi daanaka booy xool presque ci couleur couleur nationale bi la nekk mais c'est de très beau bus loo leen mënti critiquer critiquer critiquer bus yi dañu rafet yaa ngi gën aujourd'hui mais euh, je veux dire euh, am na loo xamante ne maanaam système boobu nga bëgg attribuer wu wan ñëpp ne maa def lii loolu lañu war a dakkal mm-hmm. dañu war a xam ne gouvernement bu ñu fi teg ñu liggéeyal askan wi seen wareef la léegi nag askan wi mooy juger après ci bilan bi nga fi def que ce soit matériel ou immatériel dëgg-dëgg mën a natt li nga xam ne jëf jot nga ko liggéey ci ñoom mais c'est pas aux politique de nous imposer à la limite c'est même une offense même yàpp yàpp ñu sax la ak bëgg noo wan ne man la affaire bi alors que en réalité affaire bi du yow. Hmm. wax dëgg yàlla parce que li tax mu nekk yow askan wi la moo la tànn yëkkati la élevé la ci niveau bi nga nekk. donc tey boo koy liggéeyal moom nga war a liggéeyal te gëm naa ne xëy na bu nekkee couleur nationale vraiment le sens du patriotisme dina gën a yeewu ci sénégalais bu ne ba yenn actes yi nga xam ne ñu ko daan def démb ak bërki démb dootuñu ko defati. couleur u hmm. parti daal. Hmm. na yem ca permanence su parti bi loolu laa. surtout peindre les les les biens publics euh, ñu peindre ko euh, euh, mi dëgg yàlla loolu am na am na benn élan bu xamante ne daf koy defaat ci Sénégalais yi man dam naa Sénégal boo xamante ne foo romb seen euh, vert jaune rouge euh, am na lu mu war a mën a def euh, ci xale yi te mm. toj beeg yàq bi sax dina gën a wàññeeku dina gën a wàññeeku mm-hmm. ngoo ne sentiment nga am bu ñu yeggoon ci couleur bus yeeg BRT yeeg terre bi comme ni ko le ministre Sacco que mu refléter suñuy couleur fi fekk dafa ñaaw de. que dina am lu muy régler. ba ki sol def gerte sol defee ko plateau sax bëgg naa. <laughs> ah non <laughs> loolu moom jàpp dafa internet yi de boo xëyee ba def ko. dañ tuddee le douzième gaynde. ah kay am na ku ma la koo xam ne ca kaw ba ca suuf moom la maye ba pare nag aw plate leen na paan ak naaj bi tàng bi njàpp. <laughs> naqari deret kay yoo ko def. waaw xam nga couleur nationale xam nga nag wax dëgg yàlla beige marron sa <laughs> couleur parti nga def ko ci bus. Mhm. loolu xel nangu. Mhm, mhm. bu ko Abdou Diouf defee Abdoulaye Wade def ko peut-être moom def ko ñoom bu ñu ñëwee andi couleur nationale ça veut dire que ñëpp dañ ciy ànd ak ñoom. parce que loo xam ne defuñu ko vert blanc comme ni nga ko waxee vert blanc bi nag vert bu rafet di tax am beneen vert boo xam ne day ma day metti bët. <laughs> mais vert blanc boobu. mooy mooy vert pastef bi. bu pastef moo mel ni. raftu moo mel ne comme bee raftu. nappati ci yow yow moom de toute façon vert mosu laa neex. rax na rouge de. yow lu dul bees bëggoo ko yow yére bu bees sax ma la ko mënee rek moo koy delloo bëggul vert. ay rabam bëggu ko. daf ko def donc couleur nationale déjà. drapeau vert jaune rouge nga xam ne dafay représenter lu bari boo ko defee ci ay bus dina am lu mu soppi dina gën a andi esprit patriotisme bi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci bëgg seen réew man kenn dama ci mm-hmm. yaakaar mooy ba du seer rek ndax fu mu ne nii lépp luy jógee ci a saytu man loolu lekke sans problème El Malick na xool daal mm-hmm. am yu mën a andi pentu parce que bu mu seer bu baax dëkk bi xaaj bari <laughs> li nga neex xanaa lu ngi bëgg bari ni ah, gaf ak état day na la ci la bokk caisse noire bu fi nekkoon mën nañ cee bi ñu yóbbu waaye caisse noire bi dafa ànd ak caisse noire bi ne ko tuŋaañ dem yóbbu ko. <laughs> ne ko tuŋaañ yóbbu jox njabootam. elle est terrible elle est terrible. Oh, Ngoné ay ca Cheikh. oui mm-hmm. wala dañu war a dem au delà des couleurs. xam nga Pastef moom. bokk na ci li taaral seen ñëw ci parti ci langue politique bi. mooy jëmmal gi ñu jëmmalaat drapeau national. Mhm. boo xoolee loolu dafa am benn man en fait l'avènement de Pastef kon dama ko tuddee renaissance patriotique. Mhm. ci pat ci patriotisme waaye ci drapeau Sénégal. la vraie indépendance. merci buñ dajee ni jeunes yi di agiter drapeau Sénégal. damay wax ni bi rébellion décla déclenché Casamance ba bi Ousmane ko ñëwee ci langue politique bi. li ñu agité drapeau Sénégal biir Casamance de deux mille vingt et un à nos jours mustaam loolu signe bu fort la léegi kooku lañu doon jiiñ na pro la ki nga xam ne mi ngi ci fiefu séparatisme di fa agité drapeau national réew mi loolu renouveau la xam nga réew fekk gëmul lim doon gëm cosaanam démbam du développé mukk sampal système boo bëgg système boo bëgg boo ko jëmbatul ci cosaanu réew ma du dem xam nga euh, comment ça s'appelle encore doctrine ba doctrine soviétique bi euh, dimbali ma ci dimbali ma ci ngir yàlla bana maam doctrine bi soviétique yi amoon hmm.